بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سماد محمد يقول عبد الله وهو أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وزريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همازات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرني الحمد لله الذي بجلاله تم سالحات الحمد لله على كل حال سبحانك لا علم لنا إلا بما علمتنا أنت العليم الحكيم ساد لساني نور جناني سافي أماني وزد براي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi ak wëllëre yi af waaye mën a nekk ci àddina si di seetaan noo lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dégg nga di wax ne Eh, ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu di sant suñu wasila muy xaadimu rasul di wax ne dégg maam tabaski nañ ci jàmm ak salaam kon ñoo ngi ñaan képp koo xam ne ki yàlla def na dégg ak foo mën a julle ak foo mën a ne dégg nga lay wax ngeen baal nu àq baal nañ leen yàlla nu yàlla boole baal yàlla nañ ko yàgg fekkee dégg nga ci barke Seydina Muhammad ci barke Xaadimu Rasul di siyaare bu baax dégg nga ki nga xam ne moom mooy sëñ Muntaxa dégg nga di ñaan yàlla yàggal ko fi wéral ko kàttanal ko ci liggéey bi muy liggéey yàlla na ko ci yàlla defal lu koy njortam di siyaare sëñ Cheikh Jëmb faal ak mboolem Baye faal yëpp waaye noo ngi siyaare tamit Serigne Saliou Touré mu sëñ Saliou Mbacke mu Xaadimu Rasuul fi Thiès dégg maam jàmbaar l'islam di siyaare dégg maam mbooleem kër diine yëpp. wacana ba no len di siare wa Ndiassane wa tiawon no ngi siare di mam layeni ak sal sal yu ak dabax yi yu bit ak ñasen ñep bayiwunu kenn bayiwunu alaaji Munir Njëgan fii dégg maam keur ma alaaji Njëgan no ngi siare ñep di wax ne dégg nga yalla mi nga xam dara teew ko yalla nañu yalla defal nawet jam dégg nga ndox mi yalla ko yalla unité indi ko ci jam ak salam dégg mam kenn bañ ci loru ci barke Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax ne nak no ngi no ngi ak sunu caméraman dégg nga muy euh, ki nga xam ne kii dégg maam mooy Modou Aïssa waaye noo ngi ànd ak dégg nga euh, ki nga xam ne kii dégg maam mooy Alaaji Seen waaye dégg nga ak daawda Guèye waaye dégg maam ak mboole waa Prestige gépp dégg maam di siyaare bu baax seen satir na njoon ñoom ñëpp bàyyi wunu dégg maam euh, sunu doom yi suñu njaboot yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Prestige ñëpp leen ñaanal dégg nga jàmm di wax yàlla nu yàlla defal dégg jàmm ak salaam di balu ak ñëpp nag kep ko xamne ne yaangi ngi prestige ñu andi di ci liggey bi de nga nok lay ñaanal de mam jamm di la balu ak te di la bal ak di wax ne no nga ñaanal Papa Doumbouya mi nga xamne moy directeur bi de nga yàlla nako yalla may wér may ko kattan mam yeen bi mu am ci liggey de nga ci islam ak de nga ko ci askan wi yàlla nako ci yalla defal lu koy njottam ñoo ngi sant ñep di gërem ñep di wax ne tay nak ah dañoo sunu di sunu xarit de nga ah, di musa pen jàng xasaayit rek lay def di nit ku baax di nga koo xam ne kii si te Senghor gii la ko yàlla def fa la dëkkee di nga ah, nga xam ne mboolem jàngkat yi nga xam ne ñoo nekk Thiès dégg nga suñuy sag lañu suñuy tiitar lañu rawatina dégg maam Mor Massamba Diop sama jarbaat dégg nga ak ki nga xam ne kii dégg mooy mustafa Seck dégg nga ak ki xam ne kii dégg maam ah, kenn ku nekk xam na ne ah, ñoom Mori mbaay dégg nga jàngkat yi su ma limee sax damay juum waaye ki nga xam ne kii dégg maam. ah mooy Massamba Diop mi nga xam ne dégg maam moom boole ak moom tamit ba mu ñëw fii ñoo ngi koy sant di ko gërëm di sant mbooleem jànkat xasida yëpp dégg nga waaye ki nga xam ne mooy njaga teggin nga xam ne mooy bu naaf yu dégg maam euh, moom mooy jiital gi muy njaga teggin di ànd koog dégg nga alaaji mun ñang ànd kook dégg maam ah ñoom euh, xaadim ak ñoom ñëpp noo leen di siyaar di leen balu ak dégg maam di ñaan yàlla nañ ko tëbaskiwaat ay tëbaski tëbaski ci barke Seexu Xaadim di wax ne nag tey nag euh, dañuy bàyyi rek xanaa suñu doom dégg nga mu xam naa ne day nuyoo xasida rek bu paree nag ñu soog a euh, nuyoo nag nuyoo bi nga xam ne dana leen koy nuyu dégg nga su ko defee ñu xam ne rek temps bi tamit daa yaatuwul lool moo tax waaye nag luñ ci mën a am rek mu mën a baax kon su ko defee rek dégg nga sama doom euh, sama xarit dégg nga sëñ Moussa dégg nga maam Pène kon xasaayit bismillah ci xasida yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن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 ما سفيل المسب لتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته وصورا ثم صلاة الله والسلام على الذي مني لو أقلام سيدنا سفين المقدم غند الذي تسكو لدي خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأدي وزا وجنتي وآلي وصحب الأبرار في الخال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ظلام خدمة تسر مصفا بكفيت ماسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاي كفاني صدمة أغمدوا على خروج من درر وكل سوء وانا إن وهرر أذكروا سكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نغوي كيدا خمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزازا غرورا فخمت نازما لسي المقدمة مسليا بها من قدما مرتجيا كوني خديما لسنا وأن أفوز بالمقار الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بالذي يريد أن ينتفع جعل الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يسوى نزما مباركا يقل عذابا كما الذي كابدني عذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب والرسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل كاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا ما صفاء بايتا لو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك وخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا addiyee borom Touba. kay jërëjëf ah jërëjëf di maam sëñ Moussa Penn ah kooku su ngeen ko déggee mooy jaalibatu mu raaxi bi fi aajalin ka aajalin li raaxi bi dégg nga nga xam ne xasida googu rek ah waxuma la dara waaye dañoo wax ne kër gu mu ne dégg koo faat rek àjjana mooy sa kër ab yéeféer sax bu faatu woon ndombale ko ci buntu kër ga rek wax nañu day daal di texe kon ah jërëjëf. Yal na yàlla guddal sa fan su ko defee rek dañuy daal di mëna del ci siwaat dégg maam ah, ci ah, ah, di la wax rek nga nuyo rek dégg maam su ko defee dégg maam do nga jall ci émission bi bismillah sigil nuyo waaw assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum assalam wa rahmatullah taala ñoo ngi siyaare mbokk talibé yépp ak mhm. képp ku ñuy sétan rek mhm. di siyaare sëñ Muntaxa Mbakke khalif mhm. général kulu Murid diko ñaanal suñu borom may ko fan yu gudd ak wér yaram Ah, di ko ñaanal mbooloom kilifa diine yépp mhm. ak képp kuy dox mhm. di sol sa daal di dox ngir lislaam ñoo ngi lay ñaanal fan wu gudd mhm. ak wér gu yaram te lépp loo bëgg rek suñu boroom defal la ko si lu kaw a njor di siyaar suñu baay bu baax naaru sëñ Tuubaa nga xam ni moom waaw suñu baay la suñu maam la suñu lépp la doon ku ñuy digal dëgg la waaw doon ku ñuy tere tamit waaw di siyaar tamit sama wasiila sama sëriñ sëriñ Xaadim loo Gaydel borom daam di ko ñaanal tamit moom fan gudd wér yaram Mm-hmm. te lépp lu mu naanal naalal islam bi yëpp suñu boroom defal ko lu kawe njortam. Mm-hmm. waaw mm-hmm. xam naa dañuy. <laughs> yemale foofu siyaar bi rek. waaw ah, jërëjëf joxaat ñu jërëjëf ci jërëjëf euh, sant nañ bu baax de passage di nga nuyu nuyu euh, sëñ Ablaye. dégg maam ndax euh, kenn ku ne xam na Ablaye Thiam. dégg nga moom tamit imaam nit ku baax ku bari xam-xam. di sunu xarit di sunu doom di sunu lépp. dégg nga daan yëkkatil xasida booba dégg maam mu daan jàng ma ne ko Ablaye yow yow sa domaine dëgg-dëgg da ngaa war a waxtaan ndax yàlla jox na la xam-xam te laa biir nga dégg nga tubaarkàlla waaye tey jii dégg noonu baayam nekkoon nit ku baax ku bëgg Sëñ Tuubaa baayam dégg maam foo masaan waxtaan day yëkkati ay kaala sax dama ko daan jox dégg nga Ablaye ñoom rek la mën a mel yàlla na yàlla dégg maam guddal seen fan ak mboolem ñi nga xam ñoo nekk foofu ñëpp dégg maam noo leen di siyaare waa Baxdaad gépp bàyyi wu nu kenn dégg nga di wax ne rek ñoo ngi sant bu baax a baax dégg nga mboolem daayira yëpp rek dégg maam ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan dégg maam émission bi dégg nga af waay mën a ne rek su ko defee dañuy dellusiwaat rek dégg maam ci ki nga xam ne ki dégg maam mooy euh, Moussa Penn dégg nga mu indi lu mu indilaat encore ci xas de sëñ Moussa kon bismillah dégg maam kon bismillah dégg acca إن داريني أو سارا خمدي وشكر لمن كل بي سارا لوردا دون صوت عند سرسارا لو سناي وردواني بلا سيات مصغر لي من بني دائما أنصارا لله كل داب أبار مغرمة من أرضنا وفي أجم من سارا إن الذين إلى سرسار قد خسنا زيارة فارغون دارين يا وسارا وصليا وسلما على النبي وآله ما سيا بالنجب واغفر لوالدي واغفر لجميع علي وجملة سيا بيا سميع واغفر لكل سيء تعلق بها واقعا سعادتي يا ربي يا والتف بنا وخونا وكلنا وقبلنا حسن الختام ربنا وسليا على النبي وسلم وقضي به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin adi sëñ ba eh, góor waaw eh, góor ah eh, de ngeen loolu de nga xamdi o oh, shukri liman sunu ko dele rek de mam buñ ko tuddé sama xel day dem sëñ Koso Aslo mu bax ma eysan de nga nga xamné ne jambar ju mak ku ñu wax Cheikh ali Cubb de mam nek fi nga xamné Aslo la de nga jambar nga xamné sa wax bala mooy wax dara dégg nga maam xam di wa sukri la ñu jëkk a yëkkati dégg nga nga xam ne euh, muy sarsaara muy fune rek dégg nga daan ko ànd dégg nga maam di ci nuyuwaale nga Serigne Bara Cissé borom daara ji dégg nga di nuyuwaale mbooleem dégg maam ah mooy euh, daayira bi nga xam ne bee ngi ñoom ñoo ko ànd dégg maam di ko liggéeyal waaye di ñaanal Serigne Kosso Astou yàlla yàlla doon leeram dégg nga taas ñu ci barkeem di siyaare dégg maam mbooleem mbokki taal bi yépp nag di wax ne rek dégg nga ah ko kii nag mooy sëñ Moussa Pène xasaayit dégg nga maam nga xam ne ah moom tamit dana jàng xasaayit waaye dana yëngu ci leneen waaye nag fonk xaside yi ba pare nag ah am wasila muy Xaadim Lo Gaydel dégg nga am di la am di ko baax dégg nga ñuy siyaare mbooleem dégg nga waa ñoom ñëpp rek su ko defee rek dégg nga dañuy dellu siwaat ak yow rek ci xas day dégg maam xam naa ne li si des dégg maam ci temps bi xëy du bari du waaye nag su ko defee nañ mën a jàllalewaat dégg maam yeneen waaye daal dégg nga na xam ne ñooy bég lool dégg kon bismillah ndax bi nga jàngee xam dew sukri dégg ah yaa ngi ci teg jeexutalu toxfatu mu tàddara yi fii tawasulu bi asmaa mu fàddali waaw toxfatu xas de la goo xam ne gi lu ne la man lu ne la man dama wax ne borom kër yi maa leen ci jox secret laa la wax tofatu mu tàddara yi dégg maam bépp góor boo xam ne bi dégg maam bu tàkku saane nga koy jàng dégg nga di ko saxoo seetal lim boo ci mën boo moo xam juróom-ñaari yoon moo xam nu mu toll waaye boo def fek yaa ngi koy def doo tële mukk te lii moom maa leen jox secret boobu dégg nga tofatu mu tàddara waaye lu nekk la mën faj nag dégg nga kon su ko defee dégg maam dañuy dellusiwaat rek dégg maam ah ci Euh, sëñ Moussa Pène kon bisimilah dégg nga loolu indilaat. waaw xanaa ñu si Baye Moustapha Diop rek. waaw bisimilah dina baax waaw ak si bisimilah baax rek dégg maam na ko yàlla dégg. yàllaahu bil Moustapha. Mhm. sindi di yàllaahu. wa bi xalilika Ibrahima yàllaahu. yàllaahu bil Moustapha. سندي الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبكلمك سزاليخ الخدير وبسعيب الوايس ما ليالهم وبسليمان خن يونس اليساري وزكريا يا يهود يا الله أرون يسائل يا سلوى دمادا ودا وسل كفري صلوت يا الله ويوسف الوابيس أقل وخير من الأنبياء الوارث لله يا الله وبالملائكة رمس ما صفوتهم جبريل ثم بيمي كاي لا يا الله وساخب النفخ رفي العقاب ديار واخي الخلائق ياس راعي ليالا وبيزا سوء ملو ليا إمام ولا ملين مينا أخبار يا الله وبيزا صديق وابل فاروق ثم بذي النورين ثم بسبتين يا الله بمالك ذي يا صافي يا أبي خنفات أحمد المغمود يا الله بالأخ والخلام المفوزي ثم بأرسك العزيم وبالكرسي يا الله وناجني وجميع المسلمين معا وناجي والداتي آمين يا الله واغفر لنا ولا ما إبانا والتوبنا وبيا في الخول يا الله ألا تجاوزين يا نخما نفاما لنا سواك أن تربى يا الله في برساق ما خبر كل وزارا ومن كرب وخو في الناجي الله لبنا بما ليست بقادرات ولا تخيب جات أفيك واسقنا ماء من مائك سريما اعتبته من جاني الخلق يا الله من كان يرشد ذا عين ويهلك ذا كفر وينصر من يساك يا الله محمد المسكاي الأخيار خائدين لجنة الخلد يوم العصر يا الله عليه سل وسلم دائما أبدا ومن خفو لي يوم الدين يا الله أتي برم سبا jërëjëf sëñ Moussa Pène jërëjëfati xanaa sëñ Moussa day moom lekku nga ko nag wax dëgg yàlla xasida googu nag moom moo tudd Sindidi waaw moom mujjibu la waaw juróom fukk ak juróom yàllaahu moo ngi ci biir yoo xam ne kon boo woowee yàlla juróom fukki yoon ak juróom te nga set te sell di maam a ah nga dégg loo ko wooyee yàlla yàlla wuy la dégg nga kon kooku go googu ma tudd mu mujibu dégg maam nga xam ne dégg nga sindi di moom it lu nekk la man dégg maam lu nekk a ngi ci biir dégg nga ci lu baax kon su ko defee dégg maam loolu tamit ñoo ngi ñaan suñu borom yàlla na yàlla dégg maam dàqal nu mbas mi dàqal nu musiba yi ak balaa yi dégg may ak kàttan di wax nag noo ngi tamit de passage di sant ñëpp di gërëm ñëpp dégg maam rawatina ñi ñu seetaan dégg maam rawatina dégg maam mboolem daayira yi dégg nga daayira Nimatu Rabbil Aalamiin bi nga xam ne moo nekk dégg maam fële dégg maam ci parcelle dégg nga ak daayira soog maam jaara nga kami di nga bay saliw ndjay mo ci nek di nga ak kima akhiran di nga ak ki nga xamne mo ndjay waliyu moy aline bay di nga soxna ndey Diouf mi jëwrin ba dégg maam ah ñoo ngi leen di siyaare ak mbooleem soxna yi ca biir yëpp ak ki nga xam ne moom mooy de mu talaa ak kuréel gi ñoo ngi siyaare bu baax dégg maam ah mbooleem soxna yi ca nekk dégg maam rawatina dégg maam tout tànk yi ñëpp bàyyiwuñu kenn waaye di wax ne ñoo ngi sant bu baax a baax dégg maam mbooleem ñi nga xam ñooy seetaan rawatina dégg maam ñi nekk France ak ñi nekk Chine ak ñëpp maa ngi dellusiwaat foofu léegi rek ndax dégg kenn ku ne xam na ne ah Ibrahima Dramé dégg nga maam ca États-Unis d'Amérique dégg nga di sunu doom dégg nga bëgg Serigne Touba loolu di taal bi Serigne Saliou Mbacké ñoo ngi koy siyaare bu baax di siyaare dëbbe di ko dégg nga maam ca Suisse dégg moom tamit di taalibe waaye ñoo ngi siyaare Saliou Ba bu ñu tuddee ko Serigne Saliou Mbacké moom it nekk ca Chine dégg nga di siyaare dégg nga maam Serigne Djibi Ba dégg nga ah ca Italie moo ko yaayam dégg nga maam Marie Cissé ak maam Cissé soxnaam ak ñoom ñëpp bàyyiwunu kenn waaye ñoo ngi siyaare aw Awa Balla Mbacké si dégg nga ca France dégg nga ah moom tamit ak waa kër sëñ Tuubaa ga ñoom ñëpp ñoo leen siyaar ak mbokki taal bi yëpp waaye ñu siyaare soxna Njéeme soxnaam dégg maam di ko ñaanal wér ak kattan dégg maam di siyaare soxna Awa dégg maam Kayta ca France dégg nga ak soxna Faat Si dégg nga mu baax dégg nga di taal bi Cheikh ak kan ak ki nga xam ne mooy doomam mooy Amadou Diop dégg nga ak Ami Diop ñoom ñëpp ñoo leen di siyaare bàyyiwul waa kenn nag ci waa France gépp dégg nga ñoo ngi siyaare dégg nga waa euh, fu fu waay mën a nekk ci àddina si rek te dinu seetaan dégg Espagne dégg maam soxna jëmb Diouf dégg maam ak Baabu Jéeme mi nga xam ne mooy sëriñam ñoom ñëpp ñoo leen di siyaare bàyyiwuñu kenn ci ñoom di wax ne nag yàlla na yàlla defal jàmm ak salaam te yàlla daqal nu mbas mi ak musiba yeeg balaa yi dégg yàlla ba ñëpp delluwaat seen liggéey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 waroon di yaaramoo dama mar gaayu jàngul xam boroomam ma kañ ko te ko ndax mu dolli may may géwal sañ naa kañ boroomam ma nettali fi jaloore te sulli ndam te wax xar yuy tax ngeen xam boroomam te xaji yàlla far xam nañu maqaamam ca xar baax yaag ca may ya xam boroomam ca wàllu yaag ca xutbu ya safa diwaan ca xaw si ña daa weetal boroomam ña xam yàlla ña xam yonent baawoon ba tey kenn jaaragul fa Seex Bamba jaar boroomam te wax ji moo ko wax ba ko non ba yobbo ku di ngat wax ji moo juyoog ya boroomam déglul ma wax la la waral gal ga nga xamni ni bamba Bamba de mam ga déglul ma wax la la waral gal ga nga xamni ni bamba Bamba de mam ga tarikh ba ma jëy sa sin an ma modeli lu serigne Sëriñ Basiiru ma nee na la yàlla defaloon kalima fi daari defal ko ibrahima ba yàlla buur faratal tabaski ak tam xarit may na ko gaayi mbàkke li xidmatil xadimi lil maxdoomi fil bari farlu leen ilaa tasimi addi sëñ Tuubaa waaw kay jërëjëf kon su ko defee rek xanaa nga tàggoo rek dé moom tàggoo bu dul tàggoo rek kàddu yu gàtt rek bisimilah ndax waxtu bi jeex na. waaw xanaa di sant ñëpp rek di sant waa kër gi. Mm-hmm. ak directeur bi. Mm-hmm. ñoo ngi koy sant di ko jox wàccu waayam bu baax. Mm-hmm. di la sant yow suñu baay. ak mboolem ñu ñuy seetaan ñoom leen sant di sant sama yaay sama baay. muy sama yaay waajur bu jigéen di Nogoy caam waaw soxna Nogoy Thiam. sama waajur bu góor di Serigne Daouda Pen. ñoo leen sant ndax ñoom jàppale nañ ñu lool. biir ak biti nag. waa ndax suñu toppoon rek daanaka. neneen lay demee ñoo ngi sant ñëpp di gërëm yëpp. dëgg la jërëjëf di sant di sant ñëpp di gërëm yëpp jërëjëf. jërëjëf jërëjëf sëñ Moussa Pène jërëjëf kon su ko defee rek ñoo ngi sant bu baax a baax dégg nga Cheikh Aline Dem dégg nga mu Cheikh na Cheikh Saad bu ñoo leen di sant dégg nga Cheikh Dem Cheikh na Cheikh Saad bu dégg nga ak sëñ Sidi Buya dégg nga siis dégg nga am tey jii nga xam ne sunu maam jooju dégg la ñu ñaanal dégg nga foofu ci angal mël ñu siyaare dégg nga Ndey Siri di siyaare dégg nga am Sophie di siyaare dégg nga am mboolem waa kër ga yëpp bàyyiwunu kenn ci si ñoom dégg nga waaye noo ngi siyaare bu baax a baax euh, ki nga xam ne ki dégg maam mooy Fatou Bintou dégg maam sunu bàyyi ma xujja euh, Diop mi nga xam ne moom moo jiitu yàlla na yàlla doon leeram ci barke Sidina Muhammad barke Xaadimu Rasuul dégg nga di siyaare mbooleem mbokki julli ak mbokki taalibe yi di leen wax ne rek dégg maam euh, di leen joxaat dig daje xamal leen ne seen xarit seen soppe Cheikh Ousseynou Sy Naar borom Touba mooy dajeeg yéen ci émission bi ñu tuddee jàmm ji fii ci Prestige TV dégg maam ah kon di wax ne dégg maam yàlla nu yàlla defal jàmm wasalaamaaleykum alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو عمد قديم من سماد محمد يقول عبد الله وهو أحمد